ñaar korent ñaar korent saar benn wàlle ci di ñaareelu bataaxal bi yàlla may pool mu bind ko waa korent man pool ndawul kirist yeesu ci coobareek yàlla man ak timote sunu mbokk noo leen di bind yéen mbooloom yàlla mi nekk dëkku korent ak gaay yàlla yu sell yi nekk ci diiwaanu akayi gépp na leen yàlla sunu baay ak borom bi Yesu Kirist ak jàmm cant ñeel na yàlla bàyyi sunu borom Yesu Kirist di baay bi aji yërmande tey boroom lépp luy defal xol yi mooy defal sunu xol ci sunu tiis yépp ngir nun ci sunu bopp nu mën a defal xolu ñépp ñi nekk ci tiis di leen sedd ci noflaay bi yàlla def ci sunu xol ndaxte ni coonoy kirist di baawaane ci nun noonu it la kirist nekke buntu noflaay bu yaa bii defal sunu xol sunu jaar ci tiis seen noflaay tax ak seen mucc bu dee yàlla defal na sunu xol seen noflaay tax ngir ngeen mën a dékku naqar yu mel ni yi nuy am nun itam te sunu yaakaar ci seen mbir dëgër na xam ne ni ngeen bokke ak nun naqar noonu ngeen di bokke ak nun noflaayu xol ndaxte mbokk yi bëgguñu ngeen umpale tiis wi nu daj ci diiwaanu asi yen bi diisoon na lool ba weesu sunu kàttan ba amatunu yaakaar sax ci dund demoon nanu ba defe ne dogalees na sunug dee loolu amoon na ngir ñu bañ a wéer sunu yaakaar ci sunu bopp waaye nu wéer ko ci yàlla miy dekkal néew yi moo musal ci dee gu metti googu te dina musalaat ci moom lañuy wékk sunu yaakaar ne dina nu musalaati bu ngeen nu jàppalee di ci boole seeni ñaan noonu ñu bari dinañu gërëm yàlla ci yiw wi mënu may te muy tontul ñaani ñu bari li ñuy tiitaroo moo di sunu xel day seede ne ci kanamu àddina si rawatina sax ci seen kanam aw nañu ci tànk yu jub ànd ak xol bu laab fa kanam yàlla jëfewuñu ci pexem nit waaye ci yiwu yàlla lañu jëfe bindunu leen nag leneen lu dul li jàng te xam ko fii mu ne seen xam-xam ci nun matagul waaye yaakaar naa ne bu matee dingeen mën a tiitaru ci nun ni ñu koy defe ci yéen bu bisu borom bi yéesu ñëwee kon ni mu amee woon kóolute googu naroon naa jëkk a jaar ci yéen ngir ganesi leen ñaari yoon bëggoon naa jaar ci yéen dem diiwaanu masedwan te bu ma jógee masedwan dikkaat ci yéen ngir ngeen waajal sama tukki ca yudde ba may mébét loolu nag ndax dama cee boolewul pastéef te ndax sama yéene yéene nit kese la ba may xel ñaar naan waaw ak déet wóor na yàlla ne li ñu leen di wax du waaw ju ànd ak déedéet ndaxte doomu yàlla ji yéesu Kirist mi nu doon yégle ci seen biir man ak silwaan ak timote nekkul woon waaw ak déedéet waawi yàlla la mës nekk te lépp lu yàlla dige woon fekk na waawam ci moom noonu kon ci kirist lañuy waxe amiin ngir yëkkati ndamu yàlla te yàlla moo nuy dëgëral ci kirist nun ak yeen te sol nu xelam moonu màndargaal ni ay gaayam def xelam ci sunu xol muy dawal ci cër bi mu nu dencal man nag yàlla seede na ma te giñ naa ci sama bakkan ne yërëm leen rekk moo tax delluseeguma korent du caageen nag noo leen bëgg a noot ci lu jëm ci seen ngëm waaye nu ngi liggéeyandoo ak yéen ngir seen mbég ndaxte ci ngëm ngeen sax ñaar korent man nag fas yéene naa lii duma dellusi ci yéen ci naqar ndaxte su ma leen tegee naqar kuy seddal sama xol ku dul yéen ñi ma teg aw naqar looloo tax ma binde noonu ngir bañ a agsi am naqar ci ñi ma waroon a bégal am naa kóolute ci yéen ñépp ne sama mbég mooy seen mbég ci biir tiis ak xol bu jeex laa leen bind samay bët ak ay rongoñ binduma leen ngir teg leen naqar waaye ngir ngeen xam xóotaayu mbëggeel gi ma am ci yéen su kenn tegee moroomam naqar du man la ko teg waaye man nanu ne yéen ñépp la ko teg matul may réyal mbir mi àtte bi ko mbooloo mi teg doy na léegi nag baal leen ko te defal xolam ngir bañ mu sóobu ci naqar wu ëpp kon maa ngi leen di ñaan ngeen feddali seen mbëggeel ci moom nattu leen moo tax ma bind leen it ngir seet ba xam dingeen dégg ndigal ci lépp ku ngeen baal ma baal ko itam man nag su ma baalee fekk am lu ma war a baale yéen a tax ma def ko ci kanamu kirist ngir seytaane bañ a am bunt bu mu jaar ba nax nu ndaxte réerewunu mbir ay pexeem ba ma eggee Trowaas nag ngir yégle fa xabaar bu baax bi ci kirist borom bi ubbil na ma ci bunt waaye sama xel dalul benn yoon ndax li ma fa fekkul sama mbokk tiit noonu nag ma tàggu leen daldi dem diiwaanu masedowan waaye cant ñeel na yàlla ci suñu booloo ak kirist daf ñu yóbbaale saa su nekk ci gawari ndamam te jaar ci ñun ngir turu kirist jolli fu nekk ni xeetu latkoloñ di tasaaroo ndaxte ci yàlla xeetu kirist gu neex lañu di gilli jëm ci ñiy mucc ak ñiy sànku ci ñi mujj ñi xet gu sedd lañu guy jëme ci dee ci ñu jëkk ñi xetu dund lañu guy jëme ci dund kon ku mëna a àttan yen boobu nun nag melunu ni ñu bari ñiy baana baani ci kàddu yàlla waaye ci suñu booloo ak kirist nu ngi waare ak xol bu laab fa kanam yàlla ni yonent yàlla mbaadu danoo tàmbalee tëgguwaat nag mbaadu danoo soxla ni ñenn ñi ay dénkaane yu ñu nuy gërëme te ñuy bataaxal yu jóge ci yéen walla yu jëm ci yéen déedéet yéenay sunu bataaxal te ci sunu xol lañu ko bind di bataaxal bu nit ñépp mën a xam te jàng ko ndaxte leer na ni bataaxal bu jóge ci kirist ngeen bu mu jaarale ci nun bindee su ko daa waaye ci xelum yàlla miy dund lees ko binde te du ci àlluwaay doj lanu ko rëdd waaye ci xolu doom aadama googu kóolute lanu am fa kanam yàlla ndax kirist du caageen nag ne àttan nanu dara ci sunu man-man ba nu yaakaar dara ci sunu bopp waaye sunu kàttan ci yàlla lay jóge moo nu jox kàttan nu nekk ndaw yuy xamle kóllëre gu bees gi te kóllëre googu ajuwul ci ay sarti diine waaye mi ngi aju ci jëfu xelum yàlla ndaxte sarti kese day jëme ci dee waaye xelum yàlla dafay joxe dund ba ñu bindee arafi sart yi ci àlluwaay doj leeraayu ndamu yàlla nekk fa xar kanamu musaa di leer ba bànni israyil duñu ko mën a xool fekk leer ga di wéy ndegam sàrt yoon yooyuy jëme ci dee ñoo ànd ak ndam rawatina nag ne jëfu xelum yàlla dina gën a ànd ak ndam su fekkee ne tërëliin wiy teg nit tooñ àndoon na ak ndam rawatina ci tëralin wi àtte nit jub ndaxte ndam li amoon keroog suux na ci ndam li ko raw léegi te ndegam liy wéy dafa amoon ndam asemaak li fi sax kon nag gannaaw wekku nanu ci yaakaar ju mel noonu dañuy waare ak kóolute gu mag duñu def ni musaa mi daan muur xar kanamam ngir bànn Israyel bañ a gis jeexuk leer googu saxul waaye seen xel dafa daldi gumba ba tey jii sax bu ñuy jàng téere kóllëre gu jëkk gi muuraay moomu dafay des deñul ndaxte ci kirist rekk la mën a deñe waaw ba tey jii suñuy jàng yoonu musaa seen xool dafay muuru waaye saa su kenn wëlbatikoo ci borom bi muuraay gi daldi muriku fekk nag borom bi ñuy wax foofu moo di xelum yàlla te fu xelu borom bi nekk foofa yaatu gu mat am na fa te ñun ñépp nag dañuy leer xat ndamu borom bi ak xarkanam bu móoruwul bay soppeeku ci melokaanam ànd ak ndam luy yokk te sax ci doole borom bi xelum yàlla ñaar kon nag ndegam yàlla ci yërmëndeem sas nanu liggéey boobu dunu bayliku lànk nanoo ànd ci mbir yi ñuy nëbb te ñu gàccelu suñuy tànk du yu njublaŋ te duñu dëngal kàddu yàlla waaye nu ngi biral dëgg di sàkku koolu teeg ñépp fa kanam yàlla su fekkee ne sax xabaar bu baax bi dafa muuru ci ñenn ñi dafa fekk ñoom ñu aw ci yoon wu jëm ci sànkute ñoom la yàllaay jamono ji gëlëmal seen xel ngir ñu bañ a gis leeru xabaar bu baax bi wone ndamu kirist mi di melokaanu yàlla ndaxte Yeesu Kirist borom bi lanuy waare waaye waarewunu lu jëm ci sunu bopp nun seeni jaam lanu ndax yéesu ndaxte yàlla mi ne na leer leer ci biir lëndëm moo leer ci sunu xol ngir leeral ak xam-xamu ndamu yàlla liy feeñ ci xar kanamu kirist leer googu ci sunu xol mi ngi mel ni alal waaye ñu ngi ko def ci nun ni néew doole ni njaq kese ngir kàttan gu ëpp xel gi bawoo ci yàlla te du ci nun dañu nuy sonal fu nekk waaye kenn tànc nu dañu nuy dugal ci ruq yi waaye dinañu ci génn dañu ñuy fitnaal waaye yàlla duñu wàcc mukk tër nañu nu waaye kenn dogaliwunu fu nu toll noo ngi gàddu ci sunu yaram dee gi deewoon ngir dundu yeesu moom it feeñ ci sunu yaram bés bu nekk nun ñuy dund ñu ngi nuy jébbal dee ndax kirist ngir dund kirist moom itam feeñ ci sunu yaram wii dee noonu dee mi ngi jëf ci nun dund di jëf ci yéen mbind mi nee na dama gëm moo tax ma wax nu nit nag ndegam am nanu menn xelu ngëm moomu danoo gëm ba tax nuy wax ndaxte xam nanu ne yàlla mi dekkal borom bi yeesu dinanu dekkal nun itam ak yéesu te dinanu yóbbu ak yéen taxawal nun ñépp ci jataayam ndaxte lépp lu ñuy daj seen njariñ a tax ngir yiwu yàlla wi yokk ci nit ñu gën a takku yokkaale ngërëm lu jëm ci yàlla ngir jollil ndamam loolu moo tax sunu yaakaar du tas bu fekkee sax sunu yaram day yàqu jëm ci mag sunu ruu moom bés ak bés muy gën a yeesaat ndaxte sunu coono boyof bi dul yàgg dafa nuy jural ndam lu bari ba suul coono bi tey sax abadan kon diiruñu li gis waaye li dul gis ndaxte li ñuy gis day wéy waaye li dul gis day sax ba faaw. ñaar ko juróom. yaram wi nu soloo ci kaw suuf dafa mel ni ab tànt su daanoo xam nanu ne yàlla jagleel nanu am taax ci asamaan mu loxool nit defarul di taax muy sax ba faw fi mu nu ngi wonk di yàkkamtee féete ak sunu dëkkuwaayu asamaan sol ko ni koddaay xam ni bu nu ko solee duñu def yaramu neen nu ni nekk ci tànt bii nu ngi wonk ndax coono du caageen ne danoo bëgg summi sunu yaramu àddina waaye danoo bëgg sol sunu yaramu asamaan ngir lii dee soobu ci biir dund ki nu waajal ngir loolu moo di yàlla moom mi nu jox xelam di dawal ci cër bi mu nu dencal noonu kon nu ngi fees ak kóolute fu nu tollu te xam nanu ne fii ak nu ngi dëkk ci yaram wi àggagunu sunu màkkaan ci wetu borom bi ndaxte doxewunu ab gis waaye ngëm lañuy doxe kon fees nanu ak kóolute te yéene jóge ci dëkkuwaayu yaram wii dem dëkk ci wetu borom bi kon nag des fi walla jóge fi li nuy fay daal moo di neex borom bi ndaxte nun ñépp faw nu teew ci kanamu kirist mu àtte nu ngir ku nekk jot peyu li mu def ci yaramam muy lu baax walla lu bon ginnaaw xam nañu ragal yàlla nag ñu ngi fexe gëmloo nit ñi waaye li ñu nekk leer na yàlla te yaakaar naa ne leer na leen nit bani fàng jéemunoo waxati lu ngeen nuyu nawe waaye dañu leen a bëgg a may yoonu tiitaru ci nun te tontu ñoo ñuy tiitaroo col te du xol su fekkee dañoo tàggalikoo ak sunu sago ngir yàlla la sunu àndee ak sunu sago ngir yéen la ndaxte mbëggeelu kirist moo nuy jiite ndax wóor nanu ne ndegam kenn rekk a dee ngir ñépp kon ñépp a dee te dee na ngir ñépp ngir ñiy dund dootuñu dund ngir seen bopp waaye ngir ki dee ci seen wàll te dekki kon nag ginnaaw si tey xoolatunu kenn ci gis-gisu àdduna su fekkee mas na noo xool kirist ci gis-gisu àdduna léegi xooleetuñu ko noonu kon bu nit bokkee ci kirist mbindeef mu bees la li jëkk wey na lu beese fi teew te loolu lépp a ngi sosoo ci yàlla mi nu jubale ak boppam jaare ko ci yeesu kirist te sas nu nuy waare juboo googu yàlla jaar na ci kirist di jubale waa àddina ak boppam te safu leen seeni tooñ kàddu juboo googu yàlla dénk nanu ko ay ndaw lañu yu kirist yónni te yàllaa ngi woo nit ñi jaare ko ci nun kon nag ci turu kirist nu ngi leen koy ñaan nangu leen juboo ak yàlla kirist mi musula def bàkkaar yàlla def na ko bàkkaar ci sunu wàll ngir ci sunu bokk ci moom nu mën doon njubteeg yàlla ñaar Korent nun nag ñiy liggéeyandoo ak yàlla ñu ngi leen di ñaan jariñoo leen yiw wi ngeen jote ci yàlla ngir mu bañ neen ci yéen ndaxte yàlla nee na ca jamono jamu jekke nangu naa sa ñaan ci bisu mucc gi laa la wallu tey jii la jamono ju jekk ji tey la bisub mucc gi bëggunoo la mbaaje xelu kenn ci dara ngir kenn bañ a sikk suñu liggéey li nu bëgg moo di rafetal suñu tur ni yi yàlla ci fànn gu nekk dañuy muñ coono yi tiis yi njàqare yi ñu nuy dóor di ñu tëj ci kaso dëkk yi di yëngu ndax suñu mbir ñuy liggéey ba sonn di fanaanee xool di woor ñu ngi rafetal sunu yenn ci dund gu sell ci xam-xam muñ ak laabiir ci xel mu sell mi ak ci mbëggeel gu raxul njublaŋ ci kàddu dëgg ak ci kàttanu yàlla ñu ngi yor gànnaay yi njubte ci loxol ndijoor ak lu càmmoñ ñu bàkk nu jéppi nu sant nu xas nu ñu di ñu jiiñ réeral moona nit dëgg lañu ñuy xeeb suñu tur moona tur yi siiw nañu ñu mel ni ñu loof moona ñu ngi dund ñu yar nu teewul ñu rëcc ci dee dañuy dékku tiis waaye di bég fu nu tollu ñu tumaranke waaye di womal ñu bari amunu dara fekk noo moom lépp yéen mbokki korent wax nanu leen sunu biir ak sunu biti di leen ubbil sunu xol ubbiku nanu ci yéen waaye yéen ubbikuwu leen ci nun maa ngi wax ak yéen ni samay doom fay leen nu bor bi yéen itam ubbileen seen xol bu leen likkoo ak ñi gëmul gan àndandoo moo mën a am diggante njubte ak ndëngte gan booloo moo mën a am diggante leer ak lëndëm gan déggoo moo mën a am diggante kirist ak beliar gan jaxasoo moo mën a am diggante ki gëm ak ki gëmul nan la këru yàlla mën a mànkoo ak xërëm yi ndaxte nun nooy këru yàlla aji dund ji ni ko yàlla waxe dinaa dëkk ci seen biir tey dox ànd ak ñoom ma nekk seen yàlla ñuy samay gaay kon nag borom bi nee na génn leen biir ñooñu te beru bu leen laal dara lu am sobe kon dinaa leen teeru dinaa nekk baay ci yéen ngeen di doom ci man muy góor di jigéen moom la aji kàttan ji wax ñaar Korent saar ndegam nag jot nañu ci dige yu mel nii samay soppe nanu selal sunu bopp ci bépp sobeeb yaram walla bu xel dund dund gu sell ba mat ci ragal yàlla yaatal leen nu ci seen xol tooñu nu kenn loruñu kenn naxunu kenn jël alalam teg leen tooñ taxul may wax lii ndaxte wax naa ba noppi ne yéen ngi ci sunu xol ci dund ak ci dee kóolute gi ma am ci yéen réy na tiitër bi may jële ci yéen réy na sama xol sedd na guy dama fees ak mbég ci bépp coono bu nuy daj ba nu àggee diiwaanu masedowan noppaluwunu waaye coono bu ne daj nañu ko xeex ci biti njàqare ci biir waaye yàlla mi defal xolu ñiy yogorlu ndax tiis defal na sunu xol ci ñëwu tiit te du ci ñëwam rekk sax waaye ci li defal xolam yëgal nanu seen nammeel ci nun seen rëccu ak seen farlu jëm ci man ba sama mbég gën cee yokku bataaxal bi ma leen bind daf leen a naqari rëcceetuma ko ci lu jëkk rëccu naa ko ndaxte gis naa ne bataaxal boobu teg na leen tiis donte sax ci diir bu néew waaye sama xol sedd na léegi du ndax seen tiis waaye ci li mu tax ngeen rëccu tiis wu jóge ci yàlla ngeen tegoo te àndul ak benn loraange bu bawoo ci nun ndaxte tiis wu jóge ci yàlla dina jur réccu guy jëme ci mucc te réccu googu laajul gëstu waaye tiisu àddina day jëme ci dee seen tiis wi jóge ci yàlla gis leen nag li mu jur ndaw njaxlaf ak lay ak mer ak ragal ak nameel ak farlu ak bëgg a yar ki tooñ ci seen jëf yépp wone ngeen ne seet ngeen wecc ci mbir moomu kon nag su ma leen bindee ki tooñ taxul ki ñu tooñ it taxul waaye dama leen a bind ngir ngeen mën a gis ci kanamu yàlla cawarte gi ngeen am ci nun te loolu seral na sunu xol sunu xel dal na rawati ci li nu ànd ak tiit ci mbegam ci li ngeen seral xolam yéen ñépp su fekkee ne tiitaru woon naa ci seen mbir ci kanamu tiit rusuma ci dëgg rekk lanu leen masa wax noonu it la tiit gise ne li nu leen doon seede lépp dëgg la te mbëggeelam ci yéen gën naa yokku buy fàttaliku ni ngeen ko déggale yéen ñépp ci li ngeen ko teeru ànd ak ragal ak weg bég naa ndaxte xam naa ne mën naa leen wóolu ci lu nekk ñaar Korent loolu mbokk yi danu leen bëgg xamal li yiwu yàlla jur ci biir mboolooy ñi gëm te nekk ci diiwaanu maseduwaan nattu yi ñu jaar ëmb nañu coono yu rëy waaye seen mbég mu tar ak seen ñàkk gu metti ñoo jur ci ñoom yéwén gu jéggi dayoo seede naa ne ñoom ci seen bopp joxe nañu ba fa seen man-man yem ba weesu ko sax saraxu nañu nu lool ngir bokk ci ñiy yónnee ndimbal gaay yàlla yi te yemuñu sax ci li ñu séentu woon ci ñoom waaye dañoo jébbal seen bopp boroom bi jëkk ginnaaw loolu ñu jébbal nu seen bopp ci coobareg yàlla looloo tax nag nu sant tiit mu ñëw àggale ci yéen ni mu tàmbalee woon seen jëfu ndimbal ginnaaw nag wone ngeen cawarte gu tollu noonu ci ngëm ci wax ci xam-xam ci farlu gu mat ak ci seen mbëggeel ci nun saware leen noonu it ci jëfu ndimbal lii du ndigal lu ma leen di jox waaye dama leen di yëgal cawarteeg ñi ci des ngir natt fu seen mbëggeel tollu ndaxte yiwu sunu boroom yéesu Kirist umpu leen ni mu futtee am amam ba ñàkk ngir yéen ndax ngeen woomle ci ñàkkam kon lii laa xalaat ci lu baax ci yéen yéen ñi nga xam ni tàmbaliwu leen jëf rekk waaye yéen a jëkk am yéene ji daaw yëggale leen ko léegi noonu li ngeen mottali ci seen man-man tolloo ak yéene ji ngeen amoon ci seen mébét ndaxte joxe bu àndee ak yéene yàlla dina ko nangu di seet li nu am te bañ a seet li nu amul bëgguma leen a teg soxla ngir woyofal ñi ci des waaye na ñépp tolloole tey jii nag man ngeen a sàkk ci li ngeen barele faj soxlay ñeneen ngir ëllëg it bareleeg ñooña faj seen soxla noonu ñépp tolloole moom la mbind mi tëral ne ki dajale lu bari ëpplewul dara te ki dajale tuuti ñàkkul cant ñeel na yàlla moom mi def ci xolu tiit cawarte gu mel ni sunu gos ci yéen bi nu ko laajee mu ñëw ci yéen nangu na te rax ca dolli cawarteem tollu na ba nu mën a wax ne ci coobare boppam la jóge jëm ci yéen yónniwaale nanu ak moom mbokk mi am tur wu rafet ci mbooloo yi ñu gëm ñépp ndax li muy waare xabaaru kirist te sax mbooloo yi ñoo ko tànn ngir mu ànd ak nun bu ñu yóbbu ndimbal li ngir ndamu borom bi te mu firndeel sunu yéene ju rafet def nanu noonu nag ndax kenn bañoo ŋàññ ci ñuy toppatoo ndimbal lu yaatu loolu dañuy fexe def li jub du ci kanamu yàlla rekk waaye it ci kanamu nit ñi yónneewaale nanu it sunu mbokk mi ñu seetlu cawerteem ay yoon yoon ci fànn yu bari te mu gën koo fësal bii yoon ndax kóolute gu réy gi mu am ci yéen noonu kon ci lu jëm ci tiit sama nawle la ci liggéey bi ci seen biir ci lu jëm ci sunu mbokk yi ànd ak moom nag ndawi mbooloom ñi gëm lañu ñuy wone ndamu kirist na seen teeru firndeel nag seen mbëggeel ci kanamu mbooloo yi ñi gëm te dëggal leen ne noo yey wóolu leen ñaar Korent saar ci mbirum ndëmbal loolu jëm ci gaay yàlla yi matul ma leen di bindaat ndaxte xam naa seen yéene ju rafet te maa ngi ciy damu ci kanamu waa masedowan naan leen daaw fekk naa waa akayi jekk te seen cawarte xamb nañu bari ci ñoom maa ngi yónni nag mbokk yooyu ngir damu gi nu doon damu ci yéen ci mbir mi bañ a neen te ngeen jekk ni ma ko waxe woon dañoo bañ rekk waa maseduwaan ñiy ànd ak man fekk jekkagu leen te kon kóolute googu nu am ci yéen dina nekk sunu gàcce waxaaliwuma nag seen bos moo tax ma xalaat ne li gën mooy yónni mbokk yooyu ñu jiituma ci yéen toppatoo mbiri ndimbal lu yaatu loolu ngeen dige woon loolu di may gu tàlli te bañ nekk yi fi nay te lii moo am ku ji tuuti góob tuuti ku ji lu bari góob lu bari kon na ku nekk joxe ni mu ko nase ci xolam te bañ cee am rëccu walla sañul bañ ndaxte kiy joxe ak mbég moo neex borom bi te yàlla mën na leen a woomal ci bépp yiwam ba ci fépp ak ci lépp ngeen faj seen soxla yépp te sakkanle it ngir bépp jëf bu baax moom la mbind mi wax ne tabe na ba may baadoole yi njubteem day sax ba faw yàlla miy jox baykat bi jiwu ak nit ab dund dina leen jox jiwu wu ne gàññ te sakkanal li seen njub meññ noonu dingeen woomle ci lépp ba yewen ci bépp anam ba tax ñu bari gërëm yàlla ndax li ngeen maye jaalale ko ci nun ndaxte njaamu gi ngeen di jaamu yemul rekk ci faj soxlaay gaay yàlla yi waaye dina taxit ngërëmu ñu bari baawaan jëm ci yàlla ci li ngeen firndeel seen mbëggeel ci joxe ndimbal lii dinañu màggal yàlla ndaxte wone ngeen ni ngeen déggale xabaar bu baax bu kirist bi ak ni ngeen yéwéne ci seen ndimbal jëme ci ñoom ak ñépp rax ca dolli dinañu sant yàlla ak xol bu fees ak cofeel ci yéen ndax yiwu mag wi yàlla def ci yéen jëfati yow yàlla ndax samay googu weesu dayoo ñaar Korent ci lu jëm ci samay mbir nag maa ngi leen di ñaan man Pool mi ñu ne ci seen biir ragal laa bu ma leen soree niime maa ngi leen di ñaan ndax woyof ak lewetaayu kirist ngir bu ma ñëwee ma bañ a ànd ak ñeme gi may dencal ñenn ñi xalaat ne gis-gisu nit lañu topp dëgg la ne nit rekk lanu waaye duñu xeexe ne nit ndaxte gànnaay yi ñuy xare jógewuñu ci nit waaye ca yàlla lañu jóge te ànd ak kàttan ngir daaneel ay taataa dañuy daaneel xalaat yi dul dëgg ak bépp tiitër buy jànkoonteeg xam-xamu yàlla te dañuy noot bépp xalaat ba mu déggal te fas yéene nañoo jubbanti képp ku déggadi bés bu seen dégg ndigal matee xoolleen mbir mi ne fànn bu amee ku mu wóor ne ci kirist la bokk na jàppit ne su bokkee ci kirist nun itam ci kirist lanu bokk awma lu may rus su may damu lu ëpp ci sañ-sañ bi nu borom bi jox di sañ-sañu yokk seen ngëm te du ngir seen kasara ba tey bëgguma ngeen xalaat ne maa ngi leen di xëbal ci samay bataaxel ndaxte am na ku naan ay bataaxalem dañoo ñagas te am doole waaye bu teewee dafay ñàkk fulla di wax waxi picc kiy wax loolu na xam lii ni sunuy kàddu mel ci sunuy bataaxal bu nu fa nekkul noonu it lanuy mel ci sunuy jëf bu nu teewee ñimewunoo féetale walla méngale sunu bopp ak ñoo ñu naw seen bopp ci li ñuy sàkk ab natt ngir natt ka méngale seen bopp ak seen bopp ñàkk xel a tax nun nag duñu damu ci lu weesu dayo nu ngi damu ci liggéey bi nu yàlla sas ba may nu nu agsi ci yéen bu sunu sas agsiwul woon ba ci yéen kon mën nanoo ne génn nañu sas wi nu yàlla sas waaye agsi na ba ci yéen te indil nanu leen xabaar bu baax bi jëm ci kirist kon nag du nu jéggi dig yàlla rëdd bay damu ci liggéeyu ñeneen waaye am nanu yaakaar ne su seen ngëm yokkoo dinanu gëna màgg ci seen biir des ba tey ci dig yi nu yàlla rëddal noonu dinanu mën a yégle xabaar bu baax bi ci barab yi leen féete ginnaaw te bañ a damu ci li ñeneen ñi def ci seen sas waaye ni ko mbind mi waxe kuy damu na damu ci borom bi ndaxte ki neex yàlla du ki naw boppam waaye ki yàlla gërëm ñaar Korent saar benn cey bu ngeen ma mënoon a muñal ma wax leen tuuti waxi dof waaw muñal leen ma sax dama leen di fiire ak fiiraange gu jóge ci yàlla ndaxte dama leen a bëgg a jébbal jenn jëkkër képp muy kirist ngeen seet ni jànq waaye ni jaan ja naxewoon awa ci pexeem ragal naa yéen itam ñu lambaaje ni seen xel ba ngeen dëddu xol bu laab bi ngeen amoon ci seen diggante ak kirist ndaxte bu kenn ñëwee di leen waar ci yeesu ci lu juyoo ak li ñu leen yëgal walla ngeen jot meneen xel mu wuute ak xel mi ngeen jot walla ngeen nangu beneen xabaar bu wuute ak bi ngeen dégg dingeen ko dékku bu baax mona foog naa ne seen ndaw yooyu ngeen yëkkati ba ñu ëpp ndaw sax ëpplewuñu ma dara bu ma dul jàmbaar yi waxit it néewuma xam-xam te won nanu leen ko ci bépp mbir ak ci bépp fànn walla boog ndax dama leen a tooñ ci li ma suufeel sama bopp ngir yëkkati leen ba ma leen di yëgal xabaar bu baax bi te laajuma leen genn pey xanaa kañ dama tooñ ci li ma dunde alalu yeneen mbooloo ñi gëm ba futti leen ngir dimbali leen yéen te ba ma nekkee ci yéen te soxla dab ma weeruwuma ci kenn ci yéen ndaxte mbokk ya jóge maseduwaan ñoo ma indil la ma soxla woon ci lépp moytu naa nekk yenn ci yéen te dinaa ko gën a def ni mu wóore ne dëggu kirist nekk na ci man ni la wóore ne loo lii may damoo kenn du ko teggi ci diiwaanu akayi gépp tax ndax dama leen a bëggul yàlla xam na ni bëgg naa leen noonu may doxale nag dinaa ci sax ngir nii damu di wut yoon wu ñu aw ba yemale seen bopp ak nun duñu ko am ay ndawi naafeq lañu di ay liggéeykat yu njublan yuy mbubboo turu ndawi kirist te loolu jaaxalunu ndaxte seytaane moom ci boppam day mbubboo malaakam leer kon nag ay ndawam mbubboo ndawi njub loolu duñu jaaxal des na leen fey seeni jëf maa ngi leen koy waxaat bu ma kenn jàpp nib dof walla boog bu ngeen ma ko jàppee sedd leen ma cëru dof ngir ma damu tuuti man itam loolu may wax nag waxuma ko ci turu borom bi bu ma ñimee damoo nii maa ngi wax ni dof ndegam ñu bari dañuy damu ni nit kese man itam kon dinaa damu yéen boroom xel yi ak ngeen mën a muñal ñi dof ndee yéen a ngi muñ ñi leen di jaamloo di lekk seen alal di leen nax di leen xeeb di leen talaata sunu néew doole mayunu nu dem ba jëfe noonu rus naa ci lool de ma wax waxi dof moo na lépp lu waay ñemee damoo ñeme naa ko manit ndax hébreu lañu manit hébreu laa ndax bànni israyel lañu manitam ci laa ndax sëti Ibrahima lañu man itam moom laa ndax surgay Kirist lañu maa ngi wax waxi ku tàggoo ak sagoom nag maa leen ko gën a doon bu dee ci liggéey maa leen ci man bu dee ci li ñu nu tëj ci kaso maa leen ko gën a miin bu dee ci li ñu nu dóor ay yar maa leen ëpple leru naa dee ba tàyyi juróomi yoon yawut yi dóor nañu ma fanweeri yar ak juróom ñeent ñetti yoon dóorees na ma ay yet te mas nañu ma sànni ay xeer bëgg ma rey ñetti yoon dugg naa gaal mu suux mas naa yendu ci ndox mi fanaan ci ci sama tukki yu bari yi daan naa faral di daje ak musiba ci dex yi ak musiba ci sàcc yi musiba mu jóge ci sama xeet walla ci ñi dul yawut musiba ci biir dëkk yi ci màndin yi ci géej gi ci biir bokki taalibe yu nafeq yi sonn naa di ñaq di fanaanee xool di xiif ak a mar tey fande di dekku liw te rafle waxaaliwuma li ci des nag bés bu nekk maa ngi xalaat mboolooy ñi gëm ana ku ci néew doole te walluma ko ana ku ci bàkkaar te awma naqaru tiis su ma damu waree kon ci sama néew doole laay damoo yàlla bàyyi sunu boroom yéesu moom mi màgg ba faw xam na ni du ay fen ci man ba ma nekkee dëkku damaas boroom dëkk ba di jawriñu buur ba aretaas dafa santaane woon ñu wattu dëkk ba ngir man maa jàpp waaye dugalees na ma ci dàmba jaarale ma ci palanteeru miiru dëkk ba yoor ma ci suuf noonu ma ko ñaar Korent saar damu amul njariñ ba tey war na ma kon ma jàll ci nettali gis-gisi gis borom bi ak i peeñu xam naa taalibeeb kirist boo xam ne yëkkati nañu ko ba ca asamaan si gën a kawe boobu ak léegi mën na fukki at ak ñeent xamuma ndax ànd na ak jëmmam walla déet yàlla rekk a xam xam naa ni nit kooku yëkkati nañu ko ba fa yàlla nekk bu dee ci jëmmam mbaa ci xelam xawma ma yàllaa xam mu dégg fa baat yu ñu mënula euh, nettali te yu ñu mayul doomu aadama mu ŋaan ko dinaa damu ci nit ku mel noonu waaye duma damu ci sama bopp lu dul liy wone sama néew doole su ma bëggoon a damu du doon yëfi dof ndaxte dëgg lay wax waaye damay moytoo damu ngir kenn baña foog ci man lu weesu li mu gis may def te muy dégg ma di ko wax te it ngir ma bañ a yëg sama bopp ndax peeñ yooyu wees xel mayees na mbir dal ma ci sama yaram di ma mitital ni dég muy malaakam seytaane mu may sonal ngir ma bañ yëg sama bopp ñaan naa borom bi ñetti yoon ci mbir moomu ngir mu tàqale ma ak moom waaye mu ne ma sama yiw doy na la sama kàttan ngi mate ci néew doole kon nag dëgg-dëgg gën na ma bég ci damu ndax sama néew doole ngir kàttanu kirist dëkk ci man looloo tax may bég ci néew doole yi may wéye ngir turu kirist ciy tiis ci njàqare mbaa ñu saaga ma mbaa ñu fitnaal ma ndaxte bu ma neewee doole booba laay am kàttan ci dëgg-dëgg wax naa waxi dof te yéena ma ci dugal fekk yéen ci seen bopp sax yéena ma waroon a sargal ndaxte su ma dul dara sax seen ndaw yooyu ngeen naw ëpplewuñu ma dara kéemaan yi jaloore yi ak jëf yu màgg yi firndeel ndawul kirist feeñ nañu ci seen biir ma ànd ci ak muñ gu mat lan laa defal yeneen mboolooy ñi gëm te defaluma leen ko xanaa rekk li ma wéeru ci ñoom te wéeruwuma ci yéen baal leen ma googu tooñ maa ngi leen di waaj a gane ci ñetteel bi yoon te duma wéeru ci yéen wutsiwuma seen alal yéen laa soxla ndaxte du gune moo war yor waajuram waaye waajur moo war a yor gune yi man nag nangu naa joxe li ma am lépp ak xol bu sedd ba joxe sama bopp sax ngir dimbali leen ginnaaw bëgg naa leen nii xanaa kay seen mbëggeel ci man warula wàññeeku kon noonu la nekkuma woon yen ci yéen waaye mën na am ñu naan dama leen a nax ba réeral leen ci sama njublaŋ mbaadu dama lekk seen alal jaare ko ci kenn ci ñi ma yónni woon sant naa tiit mu ñëw ci yéen te yebal naa sunu mbokk moomu ak moom ndax tiit dafa lekk seen alal man ak moom ndax bokkunu woon xel munu yëkkati ak tànk yu nuy dox xanaa diirub li ngeen di jàng lii defe ngeen ne nu ngi wut aw lay ci seen kanam samay xarit ñu ngi leen di wax ci kanamu yàlla ak ci turu kirist te lépp ngir seen njariñ la ragal naa bu ma ñëwee ci yéen fekk leen nu ma neexul te yéen it ngeen fekk ma nu leen neexul ragal naa fekk ay xuloo ci seen biir ak ñeetaane xadar ak diiroo mbagg xas ak jëw réeréelu ak yëngu-yëngu ragal naa bu ma leen ganesiwaatee yàlla sama boroom suufeel ma ci seen biir ma naqarlu ci ñu bari ñu bàkkaaroon te dëdduwuñu seen yàqute seen njaaloo ak seen ñaawteef gi ñu doon def ñaar Korent saar ñetteel bi yoon ma di leen ganesi bépp àtte dina aju ci seedees ñaar walla ñetti nit li ma waxoon ci sama ñaareelu ngan ci ñi bàkkaaroon bu yàgg ak ñi ci des maa ngi koy waxaat léegi bala ma dikkaat su ma dellusee duma yërëm kenn bu fekkee ne dangeen a bëgg firnde juy wone ne kirist mooy wax jaarale ko ci man dingeen ko am digganteem ak yeen du ànd ak néew doole waaye dafay feeñal kàttan ci seen biir néewoon na doole ba ñu koy daaj ca bant ngir rey ko waaye mi ngi dund ci kàttanu yàlla nun itam néew nanu doole ci sunu bokk ci moom waaye dinanu dund ak moom ci kàttanu yàlla bu nuy jëfante ak yéen xoolleen seen bopp bu baax ba xam ndax ngëm ngi ci yéen seetlu seen bopp xanaa xamuleen ni yeesoo ngi ci yéen walla boog ngeen gis ne ay naafeq ngeen waaye yaakaar naa ni dingeen gis ne mën na noo wone nun firndeg ngëm nu ngi ñaan yàlla ngeen bañ def dara lu bon waxuma ne danoo bëgg wone noonu sunu firndeg ngëm waaye sunu yéene mooy ngeen jëf lu baax bu yaboo sax ñu jiiñ ñu ak naaféq ndaxte mënaluñu dara dëggu yàlla gi mënuñu lu dul taxawal ko bu nu néewee doole fekk am ngeen doole bég nañu ci te sax nu ngi ñaan ngeen jublu ci mat looloo tax ma leen di binde nii bala maa ñëw bëgguma leen a duma ci sañ-sañ bi ma borom bi jox jox na ma ko ngir ma yokk seen ngëm waaye du ngir seen kasara kon nag bokk yi bég leen jublu ci mat di déglu soññent bi ma leen di dénk am benn xalaat te dëkk ci jàmm noonu yàlla mii mbëggeel te di yàllaay jàmm dina ànd ak yéen saafoonte leen ak xol bu laab mboolem gaay yàlla yépp ñu ngi leen di nuyu na yiwu sunu boroom Yesu Kirist ak mbëggeelu yàlla ak booloo gi nu am ak xel mu sell mi ànd ak yéen ñépp